salaamaaleykum mbokk internet ñuy bàyyi xel saa su ne fii ci Feeling Dakar TV amati nañ mbégte nag euh, tew fii ngir indi euh, leen seen émission euh, Feeling Astuce Feeling Astuce nag li ko tax a jug rek waxoon nañ leen ko ci njëlbeen bi mooy lépp loo xamante ni day jëm ci wérgu yaram santé ak bien rek dañ leen koy daal di andil lépp loo xamante ni buñ leen ko andilee rek daleen di neex. te bu ngeen ko jëfandikoo tamit day euh, yokk seen wér bi yaram day tax ba dañ ba ngeen nekk en bonne santé dañ leen koy andil ba tax na euh, première euh, numéro bi andi woon nañ ay astuces yoo xamante ni amaloon na leen njëriñ deuxième numéro bi tamit kazalika waaye nag ci deuxième numéro bi lañu desandi ci deuxième numéro boobu nag ñu ngi ci waxoon ñu ngi ci doon wax ci góor ñi nga xamante nii dañuy gaaw a yëg seen bopp maanaam góor ñi nga xamante ne ni dañuy gaaw a daanu tubaab di ko woowee éjaculation précoce léegi euh, waxoon nañ nag ni que éjaculation précoce boobu noonu euh, mën na nekk feebar mën na nekk mën na bañ a nekk feebar aussi euh, mën na nekk tamit stress stress mën na ko andi leneen li ko mën a andi tamit moom moo nekk am envie trop bi parce que des fois di nga toog lu yàgg doo sekk ak jigéen envie boobu tamit bu la bu la bu la duggee mën na tax ba nga xamante ne nii. soo koy def rek balaa nga see yàgg sax mën nga daanu am na ñoo xamante ni aussi. Euh, maanaam dañ koy def seen xel trop léegi nag am na ñoo xamante ni nii ñoom euh, quatre fois par semaine la ñuy la ñuy def rapport te loolu aussi bon c'est pas conseillé c'est pas conseillé bien vrai que nit nag boo boo yoree sa jabar du nit du la wax euh, tel jour ngay def su ngay sëkk ak sa jabar nit envie rek lay am sa envie ngay toog mais tamit nag des fois da baax nga nga nga am maitrise des fois ba da siy baax nga téye sa bopp aussi Euh, rapport nekk na loo xamante ne nii euh, dafay affaiblir nit dafay affaiblir nit xaw ma ndax xam ngeen ko wala parce que def euh, la preuve en est bu ngeen defee rapport ba pare da ngeen di faible du ngeen mën a ci dara il faut que ngeen toog quelques minutes pour que ngeen mën a récupérer léegi imaginez loolu noonu ngeen koy répéter pendant quatre fois par jour wala cinq fois par jour vous voyez donc tey nag moom dañ leen di andil Euh, astuce boo xamante ni aussi euh, dina dafay yomb si yéen parce que la dernière fois euh, meewu bëy la ñu andi woon ak tàndarma bëri na ñoo xamante ni nii woo nañ ma di wax ni que fi ñu nekk meew bëy bi du fa yomb moo tax tey ma indi leen beneen astuce boo xamante ni nii pour force la endurance ak puissance force endurance ak puissance ñett yooyu notez bien léegi nag ñi nga xamante ne nii amuñu woon possibilité pour defar mélange boobu meewu bëy bi ak tàndarma bi nga xamante ne meewu bëy jamono ji ndaal euh, jafe na jafe na léegi nag mélange bi nii pour yéen la tey nag moom dama leen di indil ay ingrédients yoo xamante ne nii euh, c'est facile à préparer te tamit euh, yomb na mën ngeen ko am fu nekk fekkee fii ci Sénégal moom yomb na waaw foo dem rek am na foofu bu fekkee Europe tamit euh, yaakaar naa ni yomb na foofu noonu en plus cherul benn yoon te baax na seen wér-gu-yaram bio la amul benn effet secondaire bu si nekk parce que loolu noonu dafa pour cent naturel ingrédients yi ma leen di jox dafa 100 pour cent naturel 100 pour cent bio léegi nag noté leen ingrédients yi bu baax euh, petit cola ngeen di jël petit cola xam ngeen petit cola mooy lu weex loolu rek doomu ndaw bu tey wax noonu waaw nu mu waxee noonu noonu la baaxee si wér gu yaram baax ci góor léegi nag petit cola bi da ngeen koy dangeen ngeen ciy jël ut cinq doom cinq doomu petit cola ngeen di ut bu ngeen utee cinq doomu petit cola ngeen utaale jinjeer ngeen ut ñeent euh, ñetti doom wala ñeenti doomu jinjeer ngeen ut ko ñeenti doomu jinjeer wala ñetti doomu jinjeer ngeen ut ko ak cinq ak euh, sept doomu laaj mën ngeen sax jël doomu laaj bi yépp mooy euh, laaj bi entier bi noonu buñ la ko jaayee doom doom bi lëmm doom bi lëm mën ngeen ko jël utiliser ko léegi nag naka ngeen koy euh, préparer mooy dangeen koy xool comme euh, video bi nekk ci sama ci sama sama wet nuñ koy defee noonu ngeen koy defee léegi da di jël kii bi nu tuddi sax da ngeen di jël petit cola bi ngeen xolli ko petit cola bi des fois dafay am dafay am dar buy nekk ci kawam ngay gis yoo xamante ne des fois du am dar mais bu amee der rek da ngeen koy xool bu ngeen ko xoolee ngeen raxas ko ba mu set après ngeen bàyyi ko mu wow comme ça ngeen mën ko gratter léegi nag da ngeen koy jël ngeen gratter ko gis ngeen ko noonu ci vidéo bi bu ngeen ko gratter gratter ko mais bu ngeen koy gratter nag da ngeen di jël euh, grattoir bi am na am na dafa am euh, trois parties la am am na grattoir yoo xamante ne trois parties la am am na yoo xamante ne deux parties la am léegi da ngeen di jël partie bi nga xamante ne moom moo ci gën a sew moo ci gën a gën sew nga xam ne boo ko gratter day mel ni sunguf boobu ngeen di utiliser bu ñu ko utiliser ngeen gratter euh, petit cola bi yëpp yëpp yëpp ba mu jeex mooy cinq doom yi ngeen gratter ko yëpp ba mu jeex léegi su ngeen paree ngeen jël jinjeer bi ngeen raxas ko ba euh, ngeen raxas ko mu set xolli ko bu ñu ko xoolee euh, soit mu nekk trois jinjeer wala quatre doomu jinjeer mën na ko nekk sa dépend de vous léegi bu ngeen ko jëlee tamit ngeen daal di gratter tamit li nga xam te nii moom moo di jinjeer bi ngeen utiliser tamit même partie bi ngeen gratter wee petit cola bi moom ngeen di utiliser. bu ngeen ko gratter ci njeer bi ba mu ba mu ba mu ba mu pare ngeen daal di jël laaj bi laaj bi tamit fekk xolli ngeen ko ba raxas ko ba teg ko à côté ngeen jël doomu laaj bi euh, li ngeen ko xoolee noonu ngeen jël commencé ngeen gratter ko tamit laaj bi yëpp doomu laaj bi yëpp waxoon naa leen mën ngeen jël laaj doomu laaj lëmm ngeen jël ko xolli ko daal di koy gratter bu ngeen ko gratter ba pare après ngeen daal di jël mélange boobu noonu ngeen jël euh, butéel un litre. bu ngeen jëlee butéelu un litre ngeen daal di jël euh, li ngeen garaat noonu yëpp mooy laaj beeg jinjeer bi ak petit cola bi ngeen daal di koy jël boole ko ci benn butéelu un litre après ngeen daal di ci sotti ndox ba mu fees bu ngeen sottee ndox ba mu fees nag ngeen daal di koy yëngal ngeen koy yëngal yëngal yëngal yëngal pendant deux minutes ngeen yëngal ko pendant deux minutes su ngeen pare nag ngeen teg ko mais nag au lieu ngeen koy tegee euh, ngeen koy tegee nii mu taxaw da koy tëral da ngeen tëral butéel bi waaw da ngeen di tëral butéel bi léegi nag bu ngeen tëralee butéel bi ngeen bàyyi ko noonu ni ngeen ko tëralee noonu ngeen bàyyi ko noonu pendant 5 heures de temps pendant 5 heures de temps léegi su ngeen paree nag ngeen soog ko commencé di naan fekk 5 heures de temps yi teg na le temps que mélange bi di di di di reposer wu yooyu noonu jinjeer beeg laaj beeg euh, petit cola bi le temps muy reposer wu. waaw muy pendant muy 5 heures de temps yooyu après ngeen soog ko commencé naan loolu nag mën ngeen ko naan pendant 14 jours. pendant 14 jours waaw traitement boobu da koy naan pendant 14 jours incha allah di ngeen am force di ngeen am puissance te tamit nag endurance bi du des gannaaw kon mbokk internautes yi lii laa leen andiloon tey ci seen émission feeling astuce j'espère que nag astuce bi dina leen neex ndax am astuce bale le passé amoon na ñoo xamante ni nii amoon nañ problème pour def ko waaye am na ñoo xamante ne nii ñoom def nañ ko te nee nañ Euh, résultat bi c'est satisfaisant donc mélange bi nag yéen ñi nga xamante ni nii woowoon ngeen ma te amoo leen woon possibilité pour am meewu bëy bi wala amoo leen woon euh, possibilité pour am mixeur pour mixer euh, tàndarma bi ak meewu bëy bi donc mélange bii nii pour yéen la gratukaay rek ngeen di ut loolu yomb na boo demee ci marché yi jaakatu bool yi ñoom am nañ ko ceerul ngeen jël ko daal di def seen mélange daal di koy teg waaw ko après ngeen commencé ko naan ngeen naan ko pendant jour jours lii nag laa leen andiloon tey j'espère que neex na leen di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tamit di leen wax ni képp koo xamante ni nii bëgg nga seetaan suñu ay vidéo nga abonné wu ci chaîne bii di Feeling Dakar TV comme ça vidéo yu ñu dugal rek ngeen mën cee jot yéen ñi nga xamante ni tamit yéen yéen abonné wu ci suñu page Facebook vidéo yi tamit mën ngeen ko jee ci chaîne YouTube bi Feeling Dakar TV mën ngeen abonné ngeen bës cloche de notification bi comme ça vidéo bu ñu dugal rek di ngeen jot notification ni Feeling Dakar TV daal dina dugal vidéo bu bees ngeen daw seetaan si ko ñi nga xamante ni tamit ba tey bëgg nañoo jox ko ak man mën ngeen woote si numéro bi di daw si écran bi su ko defee ngeen laaj ma ma tontu leen jox leen ay réponse jox leen ay solution yoo xamante ni bu ngeen ko utiliser dina leen amoon njëriñ su ko defee nag ma jox leen dig daje beneen semaine ci yeneen i astuce fii ci Feeling Dakar TV jaajëf.